bawoo ci sunu borom la nee na ci loolu la ko jëlee kooku mooy imam bi di cheikh Abdoul Khadr Mbacké di rakku cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ñëw toog si noonu taalibe yi ñëw di ko siyaare di ko xam ni ku farlu la ci wàlli diine di imaamu tuuba di ko xam ni dara du liggéeyam lu dul jàng ak jaamu boromam El Hadji Ousseynou Diagne waaw ci yoon woowu leen seen Touba tàggat ci la leen teg ci la teg ñooñam teg ci cheikh yu mag yëpp ndax sëñ Touba nee na ci gën a gàtt xel ci àdduna mooy ki nga xamee ni day def ni nun ñii wut néeg wut lal bu baax mbàjj mu baax sàkk nelaw place ak waxtu woo xam ne bu jotee mu ne dana ko def bu nelaw yeddi kulit mu tëdd yi ba ñu ko tànn man xanaa dama weri cekk ndax attaay ji ma naan wala kafe gi la mel ni faaleen bu falu buur déedéet sëñ Touba nee na doomu aadama bu nekk ci ko suuf dafa war a farlu day mel ni koo xam ni li ñor ca toolam da ko war a fat balaa nawet ñëw wala dara di ko yàq kooka war te tëdd war te nelaw nelaw dafa doon accident de parcours nit ki war nay liggéey lu ko jëriñ ci àddina wala muy liggéey ci boroomam nelaw saa bu jotee fu mu ko këfe rek boo xamee ni jeex na ca moom bu tàggoog moom jubluwaat ci tey doomu aadamaam bu ko amee lu mu cay faj wala mu jubluwaat ci jaamu boroomam doomu aadama noonu la war def ci kaw suuf ndax fii kat dañ fi ñëw ci ñooñu woo xam ni dañ ko defoon kaso pour suñ maam aadama ñu war fi liggéey pour yóbbal bu ñu yóbbu ëllëg kon nag far farlu fi moo war